aussi man dama dégg sànq ba tey gars yi di ŋaañi li fi xew li fi xew. li fi dafa rëy. Cheikh làmb ñaar yoon la toj sa kanam. bari na lii ni ko c'est la première fois. Bombardier Mohamed Ndao Tyson bëri wuñu ñu waa Tyson Tyson mer. 7 janvier 2007. jéggi barrière yee làmb jot. dem Moustapha Gueye. mais loolu am doon xeex mais lii xeex la ci biir. Moustapha Gueye Balla Beye xam nga histoire moom amul amul contexte mooy que histoire la rek. xëy na bu ñuy déplorer dañuy déplorer niveau de sécurité bi fi am niveau de sécurité bi doyul par rapport ak làmb ci làmb ji toll nii cent éléments nu ko contenir man tey nit ñi la ñu wax mais man force d'ordre bi sax laa gënoon a laa gënoon a xalaat force d'ordre bi. parce que tey lu nekk mënoon na am ci seen kaw il faut qu'on dise la vérité parce que bu ñëwee di cent éléments. ñëw tey ci stade boo xam ne gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt am na 1500 personnes tey bu amoon neneen nu mu demee tey force d' bi ñoo force de l' yi alkaati yi ñoom ñooy am ay problème donc le ministre des sports était là le président du CNG était là amoon na ay député yu fi nekkoon. donc xool niveau bi dañu waroon a woote waat ne la promoteur kat dolli niveau bi waaye lamb la euh, ñàkk jariñu mbër mu ñàkk problème la dañu wax ci bu baax Aliou Seye yàq lamb non non mais xam nga euh, ay ay rek wolof danaan ay du yem ci bopp borom. dëgg naa te tey loolu moo am làmb dafa am ay réalité mystique yu ci am. mbër mu ci nekk xaptel ba ngay ñëwee léeg-léeg bu xabtal ba mënut a dal sa kaw dal ci <laughs> dal ci ña ngay àndal loolu rek la mais dañu ñaan yàlla mu bañati fi am en tout cas bu neex la di ñaan El sàmm yàlla sàmm ko dolli ko wér tey il a rendu service à la nation tey réew mi delloo nañ ko njukkal ci 40 yi mu def à la RTS def ko ci Sud FM yàgg gunge làmb xanaa rek li ñuy wax rek mooy lu mel ni yàlla bu mu fi amati. fay nañu ko. bëri nañ ci ngar mi bëri ci jom ak fulla xeex ñu xeex bu neex cooki bu dëgër këcc jamante ay kurpañ ba stade bi ñëpp jóg ba yàlla miy may ndam may ki nga xamante ne que moom mooy Eumeu Sène Junior ndam ci kaw Bour Sine loolu mooy làmb mais ëllëgëm ci làmb mooy kenn mënatu ko bañ ku bëri bés bu toll nii ku lay bañ say moroom a ngi fi mbër da lay ni que mbër mën na jugaat ci jamono bu ci nekk jaw jos bi muy dégg daal ci làmb demoon na ba découragé Boy kere bi muy dégg l'empereur de l'arène sénégalais demoon na ba jeexal te pourtant bokk na ci calaf final ak ki nga xam ne moom mooy moo Xarañ Lo daan ay Cheikhou Diène daan ay Souley Dop làmb ñu noonu làmb avec ses siyaar naa la doon siyaar. mais li gis nii est-ce que lii la làmb soxla. làmb ko mais àdduna toujours lu bees am ci lu ñu foogul woon. accident la bi bi mu amee Demba Diop ñaata mortal moo am. bari na. kon tey lii am na erreur am na lii CNG lay servir leçon ñun ñi nga xam ne CNG dañuy tere ñuy bañ ñoo war a xoolaat suñu bopp CNG am na ndam lu rëy tey parce que lii lépp tere woon na ko avant muy am. mais man lii lan moo leen ci a fekk ah man na du ma CNG man bëgguma lu si mbër waaye règlement foog mu am. rek mënul ñàkk. day am sanction day am loolu malheureusement yi ñu ngi koy ñu rafetluñu ko. làmb soxlawul lii buñ ñëwee tey ci làmb ñu gis public yi mobilisé ñu seetaan bakku yu neex ñu gis axlu làmb ñëw ñu gis autorités yu ñëw ku mel ni le CNG Alioune Sarr gaawul ñëw ñu gis le ministre des sport Matar baa ñëw ak yeneen personnalité yi nga xamante ni ci état la ñu nekk wala communicateur traditionnel de très haute qualité ñu ñëw tey làmb bu rafet la doon xaar combat préliminaire yi amoon aussi nekkoon ay combat yi neex ñàkk jaruñu Aliou Seye 2 moo nekkoon combat ba ñu gënoon xaar tey ci journée bi. moo fi indi ñu bëri. moo ñu bëri donc bu ñu amee lu mel nii nii déception lay doon si ñun. est-ce que Aliou Seye jugul est-ce que waroon na dóore. Aliou Seye yàgg ci làmb waroon na am maîtrise. xam ni lu mel nii da nga koy signaler au superviseur di CNG ñi prendre not bind ko si seen rapport après ñu jël décision bu ñu ci war a jël mais parfois seen yaram day tàng vraiment c'est regrettable euh, bëggeewuñu ko nii sonn nañ si combat bi ñoom ñoo si gën a am conséquence parce que lu luñ ci investir si ay moyens si liggéey bi ñu ci liggéey combat bi kenn xamatul kañ lay amaat est-ce que dina amaat ñoom ñoo ci gën a perte. donc Euh, sanction la CNG va sévir loolu moom leer na. no dina sévère parce que Alioune Sarr ak CNG lu mel nii la ñuy xaar pour mën a montrer la voie. yaraale mbëri donc nañuy xaar ay sanctions yi métti ci seen kaw bu ko defee nag ñoom ils n'ont qu'à assumer parce que ëllëg làmb làmb euh, tànku kanam lay am am tànku ginnaaw. loolu sama conviction personnel parce que dama xam ne suñu sport national mun na nekk ci période de crise maanaam sponsors yi raar gars yi xalaat nan lañ koy sukkaliwaatee foofu la ñu toll mais làmb daf dina defar waat kase dina baissé waat mbër yi dinañ gën a raison raisonnable yeneen promoteurs yi dañuy ñëw yeneen partenaire dinañ dugg ci làmb ku mel ni Xaadim Samb lu mu def tey ji lu rëy la gis nañu ay partenaires yi mu indi ay sponsors ak autorité yi donc il est à remercier ba pare féliciter ko ñi di ko encourager pour mu ñëwaat lii bu mu ko décourager lii na ko dooleel xëy na tamit safa li ñoo des. Père Thiam bokk ci CNG Père Malaye Thiam. maa ngi lay delloo ziar fii. tey ni nga gisee làmb ji xeex violence est-ce que lii la làmb soxla. ah déedéet làmb kay soxla lii <laughs> làmb kay soxlawul lii. bon évidemment ka xam nga ne lamb soxla yow mi rëpp mi yow mi réew mi nekk ci mbir mi sa xam nga ne yaa làmb soxlawul. est-ce que lii defetul làmb ministre sport toog ñëpp toog stade fees dell làmb ji yàqoo na ci yu ñàkk fay. waaw mais xam nga euh, c'est malheureux nag non c'est dommage dañu naan c'est dommage parce que jàpp nañ ne CNG moom mi ngi assainir lu mu mën ci làmb ci euh, làmb nag entité koy def. kenn ku nekk da ngaa war a jàpp ne lii sama yëf la donc du ma ko yàq te il faut que kenn ku nekk aussi jàpp lii sport la sport nag gañ ak pert rek moo fi nekk kii day day da ngay da ngay am ndam bu ëllëgee nga ñàkk ndam bu mu ci bu la ci yàlla may rek da nga koy nangu. ñaari mbër lii lan moo la ci mën a ah doo loolu na xam nga du ñu mën du ma ko mën a xam ni man parce que loolu du suma domaine. sanction moom mënul ñàkk moom. waaw mais loolu ba tey du suñu domaine loolu lii suñu domaine mooy dañuy ñëw pour superviser bu ñu superviser nag bu ñu paree daay defar rapport yi mais kenn ku ne la la cay fekk wala lañ cay def ak lañ cay dindi loolu man bu ma ko mën a xam. Père Ngaye Loum a ngi moo fi dajaroog Mouhamed Ndao lii nii nekkul na mooy li la wax rek chaque jour da ngay wax ci luy défendre làmb mais pour nga défendre làmb aussi day métti quoi day métti trop parce que ñoom ñi nga xam ne parce que làmb li ko yàq mooy léegi fan si club moo yàq lamb mais amateur du yàq làmb de. amateur du yàq lamb fan si club yi ak al toppe yi ñoo yàq lamb. en tant que ministre sport toog ñëpp toog lii du gàcce la ci lamb. mais c'est pas normal mais amateur yi fa ñu toog ña nga fa toog yi al yi ñoo yàq lamb ji mais lamb pour nga défendre ko instant bii tout un problème. lu leer la yombul. waaw waaw pare nañ complètement fi mu ne nii li mooy ñu bëre rek. remplir suñu contrat. ñoom waaw xam na xam naa xam na non xam na li muy def xam naa ko. moom Bour Sine. lamb soxlawul lii. Euh, ñu ngi yàq image lamb parce que lamb fair play la rek sport la waaw ñaari mbër ñooy bëre ku daan ñibbi ànd say mbokk ki daanu muñ waaye lamb soxlawul image bi. est-ce comme dañ ko sotti dañ ko sotti galaaj te lamb dafa tere loolu moo tax. mais est-ce que mu doon mbër daay. tol boppam mbër xamante ne doo mën a bàyyi yoon loolu la rek. bëriwut. daa préparé combat ah waaw daa préparé combat waaye lii la yàlla dogal jaam day nangu dogal lii la yàlla dogaloon. nii rek la mën a demee waaw CNG moom dina def liggéeyam. Cheikh Ndiaye danaa def liggéeyam. na métti moom. ah waaw ça dépend ci faute bi rek. nangu licence sax mën na ci am. waaw loolu yëpp mën na ci am ça dépend rek. Euh, fi mu nekk dafa garaaw nii mooy liggéey liggéeyam rek. suspendre mbër yi de. ah waaw. doomu gën waaye ah waaw mais na CNG rek.